di la gërëm di la sant. Mhm. di nuyu seen internet yi leen di setan yëpp di dakar actu yi nekk fii ak yi nekk si diaspora bi yëpp. absolument ci diaspora bi ngay faral di ne di nga faral di setan euh, émission redevabilité bi dalal député yi. waaw dinaa ko setan mu nekk émission bu am solo. Mhm. et muy dimbali nit ñi aussi ñuy xam li nga xam ni ñuy xam li nga xam ni député yi ñu ngi koy def fii ci assemblée nationale. Mhm. alors euh, honorable dañuy tourner émission bi jamono bi nga xamante ni yéen a ngi ci li ñuy wooyee ci seen jargon marathon budgétaire. Mhm. jamono ji liggéeyu député euh, boo leen fàttalikoo di xalaat bi askan bi di wax souvent ci député yi ak liggéey bi ngeen di def actuellement euh, lan ngeen am envi wan ko député yi askan bi jamono ji nga xamante ni ci ngeen nekk ci marathon bi. wax nga dëgg jamono ji liggéey bi metti na trop. Mhm.

da ngay bëgg jël kàddu wax li nga xam ne nii moom lañ ñi nga xam ni ñoo la fal soxla ci gox yi ñu nekk. ak goxaan yi. donc loolu moo tax liggéey bi fi mu nekk nii metti na lool te am amul samdi amul dimanche. léeg-léeg da ngay dem ba minuit di waaj jot sax. ñuy doog a voté. donc muy lu metti muy mais nag euh, liggéey la boo xam ne aussi. yalla moñu ko tek mu mm-hmm. koy sante bu baax aussi. et période bi luy nek sen relation ak sen ñin nga xamanteni ni de leen di guñ te bo leen souvent fek ñu teud wa wax nga deug nak loñ nak ñu a à chaque fois. Mm-hmm. Euh, ndax boy en déjà boy ñew day goudi mm-hmm. les sax euh, manam ya koy defal sa bop ndax fek nga ñu aussi vraiment. Euh, soxna yi dañuy teel a yeewu mhm. euh, vraiment di la defaral pour nga mën a xëy ndax aussi euh, ay 9 heures la ñuy programmer gën ngaa bari. Mhm. li nga xam ne nii mooy plénière yi. tout à fait ñu leen di masow. Mhm. Oh, di leen vraiment sant bu baax ci compréhension bi aussi. Mhm. alors euh, ma fàttali ne député nga ci jaspora bi notamment fi nga xam ne moo di département Afrique du Nord nest pas noonu la. noonu la waaw yaa ngi ci diwaanu Mauritanie alors yéen député yi nga xamante ni c'est la première fois cadre bi ñu leen réservé nekk ci assemblée nationale mu di diaspora euh, ñaare boo leen fi toogee euh, député askan bi ngeen mais est-ce que di ngeen gën a bàyyi xel ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi ci bitim réew dem wuti ngir indiwaat fi nga xam ne moo di réew mi. effectivement parce que nous, tay nous fi togué tay ngir yalla ak ñom la. Mhm. ndax aussi euh, ba ñu élection yi dañ jël def ñu ci ay liste naam waye voté. Mhm. donc ñoñu à chaque fois metti na parce que aussi nous li nga euh, mhm. député c'est la première fois muy am Sénégal donc maanaam matul leg leg sax di nga tok fi ab dir waye ñële duñu xam lu la téye donc lolu aussi mais tamit ñun yalla daf lu def ku ci melni man euh ci technique la liggéey mom la xam donc may nañu ay jumtu ka yo xamni fi nga tok mën nga di joko ak nga ni fa di mëna xam seeni tawat ba liggéey bi nga xam ne nii yaa ngi koy def fii ci assemblée su la mayee ab diir bu gàtt nga dem dellu siwaat mhm. waaw exactement euh, souvent bëri na ñi nga xam dañuy wax nan situation sénégalais yi nga xamante ñom ñoo nekk ci Mauritanie ma fatil ne yow fa nekk euh, situation bu metti metti la euh, est-ce que tay ji en tant que député bi nga xam ya nga résider également ci Mauritanie da ngay confirmer wala infirmer li nga xamante mom moom moo di information boobu noonu. merci Badou donc ma profito di nuyu vraiment suma mbokk sénégalais yi nekk Mauritanie yëpp ñi ma le parti ak ñi ma bokkulul parti mhm. depuis que ñu fal ma député député sénégalais yëpp laa di wax ni ñun euh, Mauritanie dafa yàgg que euh, diggante boo qui ni dafa jige Mauritanie. lol lol lol, ba lépp lu lu ci lu ci xew lu rek mhm. donc lol ce que je sais. Sénégalais ont impression que Euh, vraiment foofu dafa metti yenn metti waay waaye nit ki bu bu jëlee ba mu jëlee saagam rek ñu day génn ay kër way juróom di dem di uti rek boobu la metti metti commencé asama nag nga génn dem bitim réew ak moo diggante Sénégal ak Mauritanie ak niñ jigéeyoo nga xam ni lu xew fii suba fanaani foofu donc loolu moo tax te et puis sénégalais yi fa nekk dañoo xaw a takku mhm. donc benn mbir bu amee rek day mel ni sénégalais yi rek la ñu ciblé. donc loolu moo tax euh, maanaam nit ñi naan Sénégal dafa metti mais daal yaakaar naa ni euh, ñu ngi sant yàlla bu baax. Uh-huh. ngi sant yàlla bu baax ndax vraiment euh, sénégalais yi ñoo ngi liggéey ñoo ngi xëy di gont njaboot yi ñu ngi dem école suñu jigéen ñi vraiment ñu ngi liggéey li ñu war a liggéey. waaye nag bari bi ñu fa bari. Mhm. moo tax euh, lu xew rek ñu ni sénégalais yi. Mhm. Euh, waaye nag jamono yi ci ginnaaw aussi am na lu fa xew muy mbiru carte de séjour aussi. Mhm. xew na fa euh, muy loo xam ne aussi lu metti la ci sénégalais yi muy lu mat cinquante mille yoo xam ni at bu nekk da nga ko war a dagg. te léeg-léeg sax pour nga gis ku la ko daggal ay problème la. donc yooyu jafe-jafe am na fa. yeneen jafe-jafe yi nga xam ni aussi am na ci mooy diggante transport bi fi mu nekk nii ma lay wax ak yow euh, pour nga indi fii matériel mhm. boo jëlee oto ba ci frontière bi maanaam Rosso Mauritanie Rosso Mauritanie mhm. da ngay yebbi oto bi nga yeboon jël oto Sénégal yàpp ci say bagage mën a continuer transport personnel bi aussi noonu la demee mhm. soo demee ba Rosso da ngay wàcc jël benen jéggi jël beneen oto Sénégal mën dem. loolu lu ko waral dag bi dafa amul pont wala lan mo waral loolu wala ay conditions yi ñu leen exiger la. ay change bu njëkk loolu amul woon. Mm-hmm. waaye nak euh, après ci ginnaaw. Mm-hmm. dafa amoon ay jafé jafé entre syndicats yi transporteurs yi nga xamni ño nek fi fii Sénégal. Mm-hmm. ak gi nga xamni syndicat transport bi nek fële. donc léegi pour pour ma amoindrir les dégâts ak yoy donc mo taxone yaakaar naa ni ñu jël yoy décision muy nous xamni d'accord la le ak wa Sénégal. Madame, suma vous la voiture transport en commun bu Sénégal. Mhm. bu yeb ay euh, passager du dugg Mauritanie et vice versa. et vice versa. Mhm. donc sénégalais bi bu joggé Mauritanie bëgg ñëw fi mhm. bu ñëwé ba frontière fay wacc jéggi dem Rosso Sénégal. Mhm. jël oto doog a mën a continuer yoonam. ak i bagage am. ak i bagage am. loolu jafe-jafe la yéen seen taxawaay lan la si yow mi nga xam ne député nga ak ñeneen ñoo xam na ay jafe-jafe bu bu bu bu jéggi dayoo la non seulement jafe-jafe yi. Mhm. waaye marchandise bi nga xam ne ak matériel bi nga xam dañ koy indi. Mhm. chaque fois dafay amay yàqu-yàqu parce que yebbi bu dee lu ñuy lekk la léeg-léeg. diir ba nga xam ni da koy toog foofu yi day day pourrir donc kenn dootu ko mën a jëfandikoo yàqu-yàqu yi day bari pour sax yow mi nga xam ni yaa sa matériel ba ko yónnee Sénégal li nga doon fay démb léegi ni double bi ngay fay ñun nag bañ ko suñu taxawaay ci loolu mhm. moo doon vraiment ñi nga xam ne ni ñooy suñuy kilifa ñu koy dégtal seeni nopp depuis que sommes sommes l'Assemblée nationale. nous euh, nous koy wax. euh, euh dina ba nga xamni sax yow sa xol da ngay xamni euh, aussi euh amna mbir yo xamni aussi. affaire état la affaire ah, da da laal touti te mhm, mhm, mhm. comprendre. donc mieux vaut rek ñuy ñaan à chaque fois. ñu ci demee ak euh, xel ak euh, ak ndànk daal. absolument loolu moo waral lool mais à chaque fois ñu ngi koy dégtal ba ñoom xam nañ li nga xam ne nii moo fa xew. Mm-hmm. xam nañ ko ba sax dégg naa ni euh, ci pont bi nga xam ne nii ñu ngi ko war a tabax. Mm-hmm. heure bu ñëwee yooyu yëpp dañ ko dëxëñ ci ci pont bi ba bu ñëwee yooyu yëpp dinañ ko saafara ci carte bi. absolument da nga wax léegi léegi lu am solo euh, maanaam carte séjour yi daanaka mooy jafe-jafe sénégalais yëpp yi nga xam ne ñu ngi bitim réew rawatina ñu nekk ci Mauritanie euh, nan la sénégalais yi di dundoo ak li nga xam ne moo di carte séjour yi est-ce que am ko yomb na wala jafe na ci ci ci blocage bu ban côté la ne. voilà Alioune kooku moom man sincèrement dama lay wax ni yombul ndax bu doon. 50 000, quest un franc CFA Donc, c'est-à-dire que 30 30 000 mille là, lay à peu près maintenant suivant la hausse ak la baisse des mhm, trucs. Mhm. donc mën un peu 50 000. donc bu doon cinquante 50 rek ak sa carte d'identité dina yomb mais a def yeneen i ay visite contre visite contrat de travail ak il mhm. y dafa sénégalais ñun ont

dem ci bureau pour dagg ñu ni la ki amul le euh, talon amul donc loolu muy lu jafé mhm. wala nga déposer ñu jël sa xaalis paré nga tok sa carte du génn sa récépissé. te boo ko amul ya ngi situation irrégulière. té boko amulé rek. ya ngi mhm. situation irrégulière. et avec l'insécurité bi nga xamné amna ci sous région bi mhm, ya y a tout le temps des contrôles contrôles yoyu nak buñ la jappé dañ lay jël teg taxi yow lox uh-huh. tey la fa ab diir après ñu jël la dog la reconduire à la frontière. Uh-huh. muy jafé jafé yu metti ko uh-huh. ko su ma déggee li ngay wax mën nañoo né nombre sénégalais yi nga xamante ni situation irrégulière lañ fa nekkee kon bari nañ parce que ñu bari ña fa nekk jot seen loxo jotewul seen gannaaw. dañoo bari trop. mais amo ci chiffre. euh amul ñoo xam nag. tolluwaay bi. waaye liñ ci xam rek mooy bari na eh, yenn saay pour sax ñu leen di eh, conseiller mhm. dañ leen di wax na ñu dem à la frontière defaat seen devise duggaat pour mën a am trois mois de euh, répit mhm. pour que buñ leen ne ñu mën a nekk en situation normale mhm, donc loolu moom très franchement euh, ñun responsable yi fa nekk ñun loolu mooy suñu jafe-jafe bu rëy te dig yaakaar nañ ñu aussi tamit diggante Sénégal ak Mauritanie ni ñu ak li ñu boole yépp depuis que Sénégal di Sénégal Mauritanie di Mauritanie yaakaar nañ ni yooyu war nañ ñu cee mën a jàppale. ba yombalal ñu ko. libre circulation des personnes et des biens bi ñuy wax. ñu mën ko am. ndax loolu bu ko amee rek maanaam Sénégal yi nekk foofu dinañ liggéey seen xel dina dal seen i njaboot seen xel dina dal. xale yi nag wax waxuñu seen wax donc way jur bu xelam dalee rek maanaam épanouissement njaboot gi dina ko mën a am. tout à fait mais mais mais ambassadeurs yeeg autorités consulaires yi xanaa amuñu taxawaay ci ci ci mbir moomu parce que euh, ni nga décrire Mauritaniens yi nekk fii Sénégal amuñ jafe-jafe boobu noonu. waaw loolu aussi lu lu jaara leeral la. Euh, ndax aussi boo seetee euh, li nga xam ni moo fa nekk ci ay sénégalais. lu toll noonu nekkul fii ci ay Mauritanie. c'est donc kooku il faut ñu sóoraale ko ba tax na ñun ñaan rek lañ ci mën def. Mhm. ak demander suñu compatriotes yi à ce que vraiment ñuy jéem a nekk dans la légalité. Mhm. bon wax nga fi ambassadeur ak euh, la mission diplomatique ñoom. Mhm. ñu ngi def li ñu ci war a def franchement avec l'ambassadeur qui était là-bas mi ngi ci doon liggéey mi ngi ci bind mi ngi nit ñi et puis vraiment mais foofu la mën a mhm. Il y a des décisions yoo xam c'est une loi qui a été à votée à l'Assemblée nationale C'est une Assemblée nationale donc l'Assemblée nationale votée c'est pas comme ça que ça va sauter. c'est à respecter. voilà donc c'est à respecter ba ñoom ñu la bonne décision ñëw abroger la loi là. Mhm. absolument loolu mooy jafe-jafe bi. tout à fait benen, beneen jafe-jafe euh, situation carcérale bi nee sénégalais yi bari nañ fa. waaw loolu nag moom euh, dernière estimation bi ñu defoon. Mhm. maanaam y avait à peu près 40 et quarante sénégalais sénégalais parce que fële nañ fa institué benn journée boo xam ni chaque année eh, ci koor gi dañuy dem visiter les prisons les prisons la ñuy dem visiter. yéen responsable yi ne foofu responsable yi ak association yoo fa nekk ak ambassade bi. Mhm. communauté bi daal maanaam ak ambassade bi. Mhm.

ñu jéem a def tout de telle sorte que ñu mën a ñëw fii ci Sénégal purger fi seen peine voilà ñu am transfert. Mhm. loolu ñu ngi koy ñu ngi koy wax ak euh, autorités yi mhm. à chaque fois ñu ngi leen koy ñaan euh, mais aussi daf di loo xam ni état ak état ñoo ko mën signé absolument voilà mais mhm. ça, état ñoo ko mën signé assistance bi ci war aussi ñu ngi koy dim dimbal ñu ngi koy sàkku à chaque fois c'est-à-dire en amont c'est-à-dire que am ben assistant juridique bo xamni au niveau de l'ambassade <laughs> à chaque fois qu'on interpelle interpeller un sénégalais on meuna dem assister avant que. <laughs> vraiment ñu koy un procès wala euh, xam nga diko donc koku buñ ko amone aussi dina réduire drastiquement. <laughs> le nombre de de cas qui sont là-bas parce que léeg-léeg vraiment ñoom arabe la ñu jàng. Mhm, mhm. yow jàngalu arabe. Mhm. seen procès verbal arabe la ñu koy communication difficile communication difficile. donc mën nga signer sax loo xamul. donc loolu lu ci ëpp daf dal. c'est intéressant suggestion boobu voilà donc bu ñu un assistant juridique. Bo xam day ñëw heure bu interpeller nit ñu contacter ambassade bi ambassade bi contacter ko mu dem sur sur place ànd ak autorité mauritanienne ak le sénégalais assister ko ba carotte, ñu defal un procès. tout à fait voilà. tout à fait alors ci ci ci benen volet aussi euh, lan c'est une relation relation sénégalais en général yi nekk foofu askan bi le bas peuple laa wax ak ñi nga xam ñom ñoo di Mauritaniens yi relation lan la ñom ñi dund fofu ci biir. non nak, sur sur le plan mom, euh, sur le social amul problème. Mmh, mmh, mmh. vraiment le courant euh, passe. le courant passe très bien sénégalais ak Mauritaniens vraiment.

am na ñoo xam ni ay xaritu Mauritanie rek la ñu am. Mhm, mhm. am na ñoo Mauritanie yoo xam ni fu nu jógee ñu ngi ci biir sénégalais. tout à fait tout à fait macha allah amul ci géej gi amul ci marché bi amul ci ci école bi. Mhm. école sax moom vraiment kooku moom xale yi dañuy dem ba di euh, di indi seen i euh, xaritu naar yi ci kër ya. waaw donc a un problème vraiment. tout à fait mm. may fàttali internautes yu ñuy seetaan de dalal euh, Mor Kane député à l'Assemblée nationale ñu investir que ci diaspora dans le département Afrique du Nord muy résider ci Diwano, Mauritanie mais également euh, sénégalais la mu ngi dëkk ci euh, commune bu Ngaye Mékhé alors Ngaye. yi dégg nañ touvent ñeen i plaider ay cause am ak yooyu noonu nekk na ci euh, yoon bi nga xamante ni daanaka tey mun na jàpp Carrefour la alors au delà de euh, situation sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Mauritanie bokk na tamit si li ngay plaider mooy li nga xamante ni moom moo di ngaay demande pressante bi ci seen commune tey jii lan la. waaw euh, xam nga nag ça me permet d'éclairer un peu. Mm-hmm. parce que nous, bari euh, manam dañu faire diaspora diaspora rek ngay wax. absolument député peuple nga. député peuple absolument le jour qu'on t'a déclaré élu. Mm-hmm. tu deviens un député du peuple. pour ne pas dire député Macky Sall. ou député de tel coin député du peuple. <laughs> yow gis ngeen les débats comment ça se passe à l'Assemblée. Mm-hmm. Nous, ce qui est défendable on le défend. ce qui n'est pas défendable on le vous avez entendu l'autre fois ngay défendre les travailleurs de la SDE. voilà Qui ah, ci li nga pourcentage bi ñu alloué. parce que. Nous avons ñuy dem diaspora fi lañ fi lañ maggé lañ yaro mhm. ñu yar yar bo qui vraiment mo ñu tax ñu nek tout à fait donc nous, nous boo ñëwee tey ñoom da ngay sen député nga aussi député Fatick nga député Touba nga. Mhm. député mhm. diaspora sax marge de manœuvre. que député yi nga xamni ñoo nek absolument donc que nous tax su fekkante ne gox yi ñu dëkk fu mel ni Ngaye Mékhé <laughs> am na ay jafe-jafe bu ñu ñëwee fii aussi bu ñu waxalee diaspora ba pare jël nag suñuy préoccupation yi nga xam ni suñuy waajur lañu suñuy njaboot ñoo fa nekk <laughs> ñu doog ko poser euh, sur la table donc loolu moo tax ñu di ko def <laughs> ñi ñi ngi ko waa Amérique ñu ngi koy def pour waa Fuuta bokk Jallobe ñu ngi koy def pour euh, Jude Jaabe ñu ngi koy def pour euh, vraiment

Nous euh, xamni ñun vraiment ñi fa dëkk dañ ko am problème euh, ceinture problème frontière mm-hmm. c'est-à-dire problème limite mm-hmm. délimitation délimitation étouffé, étouffe mm-hmm. y a des communes qui xamni étouffées dañ étouffer ko de telle sorte que ak vraiment accroissement démographique bi bu ngaay ngaay bu mag ak le développement de l'artisanat avec les les comment l'exploitation minière bi nekk aux alentours. Mhm. donc dafay attirer beaucoup de euh, comment dirais-je. Mhm. ay nit yoo xam ni dañ fay ñëw pour dëkk si pour installer donc dafa mag de telle sorte que mënutuñu actuellement amut ngaay amutul benn suuf boo xam ni. Mhm. mën nañ fa euh, def ay ay ay dëkkuwaay. donc loolu jafe-jafe la ngaay aussi amatul benn tali. Ben tali route goudronnée moo fa nek mhm. moy route goudronnée bi nga xam ni mom lañ fa def. Mhm. bi le président de la république doon euh, fait doon buñ ñu def le en 2014 la journée de l'artisanat. Mhm. donc fofu lako ko ndax ngaay li mu représenté ci artisanat bi mais nak ñu ngi koy yaakaar ci mom ndax aussi ñun amuñu ludul mom amuñu ludul vraiment ces programmes yi nga xam amna fi muy PUDC muy Puma muy euh, comment dirais-je euh, programme yi nga xamni teural nako fi di jappelé gox yi ak mhm. euh pour que mu ñew am nañ mbégte nag que ni vraiment euh, PUDC pour les petites communes comment dire Promoville. Mhm. pour les petites communes pour les petites villes les villes rurales donc ñing koy waaj Donc, amal donc yaakar nañ lool bu ñëwee aussi dinañ ñu ci jappelé ngaay pour ñu défar suñu voirie yi. Il député yi nekk ci diaspora bi jamono ji ci marathon bi yakamti ngeen bu baax a baax passage au ministère des affaires étrangères pour beaucoup de choses également. effectivement euh, le ministère des affaires étrangères mom ça su mom manam a député député yi sax dañ député. diaspora Moi c'est tutelle voilà moi suñu suis suñu tutelle. Mhm. donc euh, mais nak amna une chance quand même avec le président Macky Sall. Mhm. parce que avec le président Macky Sall ce que la diaspora a eu, ko am. donc te maanaam donc suñ nee lëg bu lekkee alam na ko gërëmee cooy ngi gërëm les ministres mais nag dañuy gërëm le président Macky parce que depuis qu'il est là euh, diaspora bi dañ ko revaloriser diaspora bi nekkatul rek nit koo xam ni day jël xaalis di ko yónnee soit ñu ci ñu koy jëfandikoo wala sax léeg-léeg bu bëggee benn mbir ñu nax ko lekk xaalisam yooyu yëpp ak le président Macky Sall dañ na fi Et ce qui est le plus important, c'est qu'il faut que ont fait des financement, Surtout les FES. Mhm. Il y a plus de 11 milliards qui a été dépensé jusque-là. 11 mhm. milliards 500 et quelques millions. Donc, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut Et aussi, nous savons ni nous sommes ici au retour. ont fait des projets aussi, ils les financent. Mhm. Donc, ce qui est le plus Ensuite, nous, ñu les 15 députés de la diaspora nous uh-huh. ñëw di plaider pour la diaspora sans intermédiaire actuellement donc loolu bu njëkk daf ñu jafe woon uh-huh. dañuy yóbbante léeg-léeg xam nga loolu pour ñu uh-huh. problème la leneen li nga xam ni moo ci avec le budget programme la dafa indi lu am solo. waaw loolu mbir mu bees la. koy gis projet de budget c'est réparti en programme maintenant. voilà mhm. ça nous a permis de vraiment la place de la diaspora. qui est le président de la république. Nous avons un programme spécial dañ assistance assistance consulaire des sénégalais de la diaspora Nous def aussi nous takku. Mhm. loo xam vraiment ci budget qui est yi dans rubrique sa kii noonu ni benn say boo xam ne rek. Mhm. daawoo ci xam fo ci toll. mais ak le budget programme là. Mhm. ça nous a permis vraiment xam président Macky Sall fan la def diaspora ci xolam. te di ngeen mën def suivi bi xol copar gi ci nan lañ ko doxalee nan fan lañ ko duggal pas à pas. il est de votre rôle également en tant que député en charge de la diaspora. pas à pas. Mm -hmm. et on sera intransigeant. Mhm. gaay niñ koy niñ koy waxé on sera très ferme. ñi nga xam ni ñoy euh gérer les programmes là diko doxal <laughs> euh 6 mois yu nek war nañ leen gis 6 mois yu nek mhm. té commission yooyu légui commission yi vraiment am nañ liggéey te dinañ ko liggéey ñom ñëpp ils sont préparés peut-être nak war nañ leen dolel aussi. Mhm. jox leen yenn jumtu kay yenn moyens de contrôle euh, de suivi des programmes lolu aussi yaakar nañ ne aussi. Euh, ñi nga xam ni nii ñooy suñuy njiit fii parce que suñu président de groupe mi ngi fii suñu aussi les présidents de de commission ñi ngi fii mhm. ñoom aussi je crois que ils sont déjà avertis xam na li nga xam ne nii moo ñuy xaar ci liggéey ci côté boobu euh, dinañ ci jàpp ba loolu mën a jàmm alors honorable député Mor Kane Ndiaye maa ngi lay gërëm di la sant maa ngi lay gërëm di la sant di profito ci occasion bi encore nga may ma mhm. Euh, mais nous, parce que Afrique du Nord des choses. Donc, Maroc Tunisie. Mhm. Algérie ba Égypte. Mhm. Euh, ndax euh, amuñu occasion dem choses. Mhm. ndax avons bi li nga faire des choses. Nous avons la koy wax faire donc yaakar na des ak ñi nga xamni ni ñoy ñew des euh yalla dina leen l'occasion jox leen ay moyens ba ñu mëna dem ci mais avec les moyens technologiques. dara umpuñu fa mhm, mhm. ñoo ngi ak ay responsable yi fa nekk mhm. ñoo ngi ak ñi nga xamni ni vraiment ñoy ambassade ak représentation diplomatique donc ma leen di gërëm ñom ñep di leen sante di gërëm aussi wa Ngaay ndax euh, euh, ni euh, aussi kuy walian sa tëgg sa dëkk moo tëggul li koy waxe té Ngaay dafa soxla jappalé motax Je vous remercie, remercier de remercier cette équipe vraiment euh, vous avez déployé de gros moyens rien que du pour man. Mhm. mais c'est pour l'ensemble des sénégalais et de la diaspora. tout à fait donc loolu na la ciy sant bu baax di ci absolument Je ko sant ko Mor Kane député euh, à la 13e législature nekk ci euh, diaspora bi député euh, département Afrique du Nord qui résider ci Mauritanie gërëm ko sant ko également technicien yi ma àndaloon gërëm leen yéen ñu ñu doon seetaan un peu partout dans le monde rawatina fi ci Sénégal redevabilité jox leen dig dajé benen yoon ak benen invité. D'ici là, comme nous l'information continue sur la référence de caractère.